Euh, ñu ngi ut mécanisme. Mm. ñu leen di boole ci élection. mi fa la ñuy taxaw Pa saa tey balaa waxtu duñu ko il faut mooy tënk. Fatima ah? benn téléphone nga jiiñ waa ah, nu ñu duggee. moo jël moo jël kóol bi ah quand même. <laughs> ba ci moom ba tey sànq yaa ngi koy wax euh, nga ni mbirum Ousmane Sonko euh, weesu na wala sax ku la da ngay dem ba dañuy yéeneente dee ku la yéene dee boo nekkee ci grève de la faim mën tegu ci leneen. voilà ñu saako yaakaar ni rek ak ni ci kilifa yi euh, waxee rek euh, dina ko bàyyi waaye nag feneen fu ñu ci Karim waxoon nañ ci Khalifa tamit mm. ñu ko fàtte looloo tax communication wu soxna yi Ousmane Sonko yi mm. côté boobu ma ñàkk ci d'accord lool mm. ñaan njëkk bi euh, première dame non seulement du ko def mm-hmm. te danaa la mënu koo def mm-hmm. la justice est indépendante mais ay la yowin lan lañ ñaanul ci njëkk ci euh, Khalifa Sall. waaw yàgg na lan la sëriñ ci ñaanul njëkk ci. Euh, ci yi sax ñu yàgg nañoo ñaan njekk ah! ngir ñu bàyyi sunu naataangooy Pa Moussa waxtu bi waaw kon boo ñaanee njëkk Marème Faye Sall ban njëriñ lay am. <laughs> servir le Sénégal. ñu leen nuyu bu baax dégg nañ tas nañu ko moom it ci tas waaw dissoudre nañu ko fondation waaw déet mënul dissoudre ah, noonu mais dama gisul Google communiqué nag non ma ne euh, mënu kenn mënu koo dissoudre noonu hmm. déedéet ñoom ku leen doon financé sax justement loolu la war a lijjanti xam nga boo dissoudre mbir hmm. amatul personnalité euh, maanaam doo mën a xamante koy attaque hmm, ndax mbir ma amatul yéen ngi yaa fàttaliku elf Elf nekkoon na le bras armé industriel de la France-Afrique. lépp mhm. li nga xamante ne France dans la politique française en Afrique ñu ngi ko ko doon imposer ci Elf la doon jaar moom moo doon piller l'économie par le mhm. pétrole di financer la vie publique politique française la vie politique africaine képp ku leen arrangé wul ci xaalis boobu lañ doon kii pour faagaagal képp ku leen arrangé xaalis boobu lañ doon utiliser pour fal la bu ñu demee ba affaire bi benn juge d'instruction bu tudd Eva détecter euh, mafia bi. Mhm. déclencher de poursuites contre ñu gis ne kii juge bi fii mu jëm nii. bu demee bu ba yegg. Mhm. mafia bu rëy mooy daanu. Mhm. dañoo jékki-jékki le petit concurrent de Elf nekkoon Total à l'époque absorbé Elf ñu dissoudre Elf Elf jeex. kon mënatuñu xam kan la ñuy poursuivre. ndax mënaguñ koo tas nag ndax yàgg nañu yàgg nañu def. Euh, wax dëgg yàlla luñ ne lu lu baax la nit ñi di ko di ko gis fondation c'est vrai waaw après 2024 saytu réew mi par force la loolu di fàttali rek euh, Pa Moussa saytu na Sénégal président mhm. saytu réew mi lu par force lay doon ci alalu askan wi ci dee yi fi am ci responsabilité yi maanaam détenu politique yeeg mhm. lépp ak ku mënti doon président de la République du Sénégal il a l'obligation de mettre le Sénégal sous les rails ci lépp loo xamante ne mooy parce que loolu exigence du peuple bi la moo tax Ousmane Sonko war a arrêté grève de fin six mois moom moo des ci la mu doon xeex 2014. rapidement ci tënk rek avocat wu nguur yi génn daal di jàpp ne rek euh, toj geeg taal geeg caxat caxate yi am ci réew mi ak sax ñi ñàkk seen bakkan jël ko gàll ko ci ndoddu Ousmane Sonko di euh, sàkku rek euh, yoon def liggéeyam jëmale ci loolu. rapidement rek Pa Moussa. avocat lañ. Mm. dañ leen fay nag pour ñu défendre ay dossier mm. loolu tamit foog ñu xam ko. mais saf que fay bi avocat wu état bi dañ leen fay tey man jàpp naa ne euh, nit buy liggéey euh, kuy war doo lu fay bay gën a dëgër a làmmiñ di gën a saf ils ont rappelé des principes l'indépendance de la justice la présomption d'innocence le droit à un procès équitable mm -hmm. mais euh, présomption d'innocence Ousmane Sonko fan la ko nit di teg chaque jour ngay dégg nit di wax comme si Ousmane Sonko est déjà coupable mm-hmm. waxuma la sax présomption d'innocence mais son intégrité physique rek ñaata yoon lañ ko salfaane mm-hmm. lan la ñu wax ñoom ces défenseurs des droits de l'homme la mm-hmm. wala défenseur d'une justice équitable mm-hmm. bi waa ji ne ñi ñu war a delloo dinañ leen delloo ñi ñu war a rey dinañ leen rey ñoom fu ñu newoon boobu Moustapha Diakhaté moo ko wax fan lañ newoon la justice et indépendante ok des infractions sont la chaque jour ñu koy gis qui vise un parti qui vise un homme qui vise sa famille personne ne bouge personne ne bronche alors le droit à un procès équitable oui y a pas de souci on y va avec un procès équitable procès équitable boo teg ci réew mi nii. Mhm. man jàpp naa ne Ousmane Sonko da ciy génn set wecc parce que deux mois la laaloon fële. Mhm. ñu ñëw yokk pour mu bañ a bokk. ñeneen ñay bokk ñu fexe ba modifier loi yi ne Ousmane Sonko moom moo dul bokk. mais modification loi yi Pape Moussa ci lan la tënku. ci li leen neex naa bokk rek. modifié nañ modification yu compliqué yoo xamante ne. Mm. pour Ousmane Sonko bañ a bokk kese la nee la Khalifa Sall Karim Wade li leen tere bokk benn moo la ci L57 la nekk du L28 ba du L29 ba ñu modifié du L30 ba ñuy modifié benn moo la ci L57 la nekk tout Sénégalais électeur bu ñu ko dindee même boo si tu fais l'objet d'un jugement d'une condamnation définitive. Mm-hmm. da bokk looloo nekkoon ci code bi. depuis 1992 donc ñoom li ñu ci yokk. Mhm. en 2018 li ñu ci yokk moom mooy tout Sénégalais électeur nañ dindi woon loolu gënul woon yomb. mais boo ko defee Ousmane Sonko day bokk te bëggoo mu bokk c'est ça la réalité il faut dire les choses telles qu'elles sont. alors donc kon tey jii nii les avocats de l'État lu ñu wax ñu ne dañuy constituer partie civile. Mhm. pour que li fi xewoon responsabilité Ousmane Sonko la daal. ab constitution de partie civile mooy ngay demande ay dommages et intérêts. pour l' état agent judiciaire de l' état moom moo mm. koy def waaw li fi xewoon ba état bi yàqule ci lu bari mais du état kese moo yàqule ay citoyens sénégalais tamit dañoo yàqule ay privé dañoo yàqule mais yàqule boobu lan moo ko war waral Fatima. ak ñan ñoo ko yàq. mais un complot ourdi a été organisé contre un, euh, un acteur de l' opposition bu ñuy wut les responsable de ça ay la yéwén nañ ko wut ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo teg complot ba dëkk bi mel noonu. ndaxte man jàpp naa ne toj taal du militantisme du bravoure du patriotisme du dara. ci foofu pas donc kon li favoriser. Mm. banditisme boobu noonu. Mm. dugg ci ces événements là li ko favoriser li sabab coow li mais mooy dañoo acharné wu euh, de manière radicale contre une personne. personnellement jugé bi ma bi ma nekkee ci terrain bi dogguma la dañ doon mm. wax ni ñoom ñi di manifester. du seen yoon nekkul ci Ousmane Sonko du Ousmane Sonko moo leen yëkkati. ñenn ñi mm. Mm. mais doxalinu réew mi ak jafe-jafe ñoom yu nekk di dund moo tax ñu génn. mais da nga kenn nataal dañu doyal ci nguur nga xam ne ñoo fi nekk. ñuy wëy di continuer mais taal jugal toj. da nga dégg Ousmane Sonko waxoo mm. ñi ko doon def. nee naa la li waraloon mu am sax cette incursion euh, de banditisme dedans mais euh, dañoo gis ay précédents avec Khalifa avec Karim. Ousmane Sonko ñëw may leen espoir xam nga espoir mooy dundal nit. mais nga bëgg a jël espoir boobu noonu yëpp bëgg ko def au néant Sénégal ay taxaw. alors taxaw boobu Sénégal ay taxaw am lu rax ci biir. loolu lay rax ci biir pour ñu xam les responsabilités parce que man jàpp naa ne état constitué na partie civile pour man le peuple doit se constituer partie civile. d'accord mais pour exiger des dommages et intérêts des réparations pour les auteurs de cette forfaiture politique. pour les auteurs de lii nga xamante ne ñoom ñu ngi ko doon jiiñ Ousmane Sonko di ko wax pendant trois ans viol menace de mort. Hmm. ñetti at ñu ñuy sonal ak viol menace de mort. ëmbal na ko ëmbul. waaw bañ ñëwee taxaw ñu ne ñaar yooyu yëpp amul. kon kay ñi nga xamante ne ñoom ñoo doon exercer cette résistance la hmm. ils ont eu raison. parce que effectivement tout ce qu'il y euh, comme chef d'inculpation ci moment bi ñuy dem ci procès ba Adji Sarr plainte pour menace de mort ak viol ñaar yooyu yëpp daanuñ ko Ousmane Sonko mhm. alors donc kon cette de résistance là avait sa raison d'être doguma la Ndeye Khady Ndiaye dañ ko daanoon ñaari ati ah, moom it waaw et pourtant elle n'est pas en situation de contumace elle, elle était là ah, na mi ngi këram fi mu nii waaye nag ñaari ati kaso mais c'est-à-dire. Euh, Fatima réeroo am na de ci réew bu ré bu rëy rëy rëy xati jaay nga këram. est-ce bi est du suba am na doom. macha allah yàlla di ko ñaanal rek yàlla gën a. Euh, dëgëral taxawaayam bébé bi dund ba am day ak baay wax dëgg yàlla. mais mais mais mais kooku ñaari at yooyu ko daan anam furaas. Mm. nan bàyyi caaxaan bi. nan bàyyi tooñ bi. Mm. Ousmane Sonko dama koo tooñ. Pastef ak ñeneen ñi nga xamante ne bokkuñu ci benn parti politique. ñu tooñ leen dugal leen. mais xale yu ñu faat te bokk bokkuñu ci parti. waaw defuñu ñu manifester c'est le peuple qui doit se constituer partie civile et non les avocats de l'État. peuple bi moo war a constituer partie civile pour demander des dommages et intérêts pour les euh, contre les auteurs de cette forfaiture là parce que nag mm. l'histoire a donné raison à tous ceux qui ont développé la théorie du complot tous ceux qui ont étaler sur la place publique l'innocence de Ousmane Sonko face à ces deux cinq chefs d'inculpation criminelle histoire dafa leen jox raison histoire bu la joxee raison nag ay la yéwén bu ñu amee ku ñuy dàmp yow la war a doon le peuple sénégalais doit se constituer partie pour demander de dommages et intérêts contre tout ça avocat wu état yi nag avocat état lañ rek waaw hmm. dañ leen engage engagé état fay leen pour ñu défendre ay dossiers ñooñu da nga leen di kii lañ nekk man daal avocat yi ma dégg Ousmane Sonko waxal boppam ne moom fayu leen fukki dërëm. wallaay teewul seen taxawaay bii ñu taxaw ay la yéwén ñoo war a constituer partie civile au nom du peuple sénégalais man de kenn fayu ma dërëm. mi ngoog waaye nag nañu taxawalee. dëgg ji moom dëggu mm. yàlla duñu ko gis fenn di ko dëggate. ñi ñu faat seeni ay doom ñoom it sàkk nañu wala sax bëgg nañu avocat boo xam ne. Eh, wala ñu jàppale leen. dafa nànk ngir rek xam nga ni ñoo ñoo ko tax a jóg. Juan dëgg-dëgg sa plainte yi jëm famille victime yi ñoo ko constitué ñoom ñoo jël xuwaan famille victime yi ñi nga xamante ne seen i euh, doom seen i euh, borom kër seen i seen i dañ cee loolu. Mm-hmm. ñooñu ñoo jël xuwaan pour que xuwaan introduire. Euh, cette dénonciation. Mm-hmm. au niveau de la cour pénale internationale xam nga ne mooy def effet. waaw foofu baax na mi ngi def effet. mi ngi wax rek ñoom ñi nga xam ne ñoom la seeni ay doom loru dañoo jaabante fii Walfadjri ba sonn. ngir rek jël nañu leen balance jël nañu leen feneen ak feneen ndax ti sàkku rek ñu indi ay leeral lu jëmale rek ci faat yi nga xam ne ñoo amal ci seen doom waaye ba tey waxuma la loo bii de mhm. loowu mars bi ba le passé mars 2021 ñoom ba tey ñu ngi daw ci ginnaaw nguur gi ngir ñu amal ay indi ay leeral ci ni ñu faatee seen ay doom ak début juin 2021 23 mhm. nañu nañu nañu dalal seen xel ci réparation de d'injustice saa si moom moo ci des loolu